jërëgeen jëf mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel di leen jaajëfal di leen ndokkeel ci bis bi nga xamante ne ci leen génn muy bisu gàmm ku ne gàmm ne Médina bàyyi ku ne gàmm ne Lew ne Niassène tey kii nu toogal mën naa ne kenn dootu ko présenté ci kanam écran yi muy Serigne Cheikh Tidiane Niass nu gën koo xam ci borom def gis dofu maam Khalifa ñu fas yéene dugg moom ci pàcc yu yaatoo yaatoo waaye bala ñoo tàmbali waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoo Serigne Cheikh nuyu nan la di la siyaar ci gàmm gi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 muy borom guddi gi ñu génnee di borom tour yu tedd yi moom moom Taaha moom al amin moom Shafiun mboolem turam rek yërmande la ca yàlla dëxëñ ak tedd ngay jikko rek lañ dëxëñ ci turam yooyu noonu ñu ngi leen di nuyu ci borom guddi googu nga xam ni moo tax yàlla bind lépp waaye bu dul woon ak moom kawnu bi du leer mooy adduna bi ca la ko sama maam xalifa waxee na ko anta lawlaa kalam yakun kullu kawnin wala ma zaal anta shiqaa'u dem na ba naan ko yow Muhammad sa leer gi rek bu réeroon ci biir ci digg manding foo xam ne làmp amu fa bu fa pusar bu fa pusar réeroon boo fa jegee sa leer gi leeral ko ba pusar ba feeñ kon kooku yaakaar naa wax ci moom dañ ciy bég loolu te yàkkamti ci daan nañ def avant première avant gàmm wala màggal wala yu noonu di jot ñu waxtaanee mbaaxu lañ jublu waaye li waraloon amuñ occasion boobu nekkuñ woon ci réew mi kon bu ñu yàlla dénkee ñoom occasion wu ñëw Sénégal ngir teral yontu yàlla Muhammad donte yàlla teral na ko fa tabarakallahu loolu mbégte la ak kontante ñu ngi nuyu mboolem site internet yu jógee ca mm, ndakaaru wala fu ndakaaru ngir ñëw couvrir gàmmu gi fii ci lew Léona Niassène kër maam Khalifa Niass ñu ngi leen di nuyu macha allah jërëjëf loolu am na solo ñëw couvrir gàmmu gi fii ci lew Léona Niassène kër maam Khalifa euh, damay ñu taxaw ci taat euh, wàllum gàmmu gi ndax diggante Léona Niassène Medina Baye benn la hmm. ndax Léona moo meññi Medina hmm. ñu dégg coow yi ci am yu sew sewaan jëm ci état bi. Hmm. ku ci mel ni Serigne euh, Baye Mbaye MC. Hmm. di waajur ci yow. Hmm. kàddu yi mu yëkkati ne Macky Sall daana dafa yëkkati cent vingt mille ci doomu Baye yi kenn ku ci ne. ba moom mu gedd bosam. ne yaakaaruñu ko ci dara. tey lew na it mel na ni état tegu fi tànkam naka nga jàngatee loolu. waaye yar bi fépp la dal rek. daña njëkk a yuuxu la ak ki bëgg a yuuxu ki mën a yuuxu ñi ngi ziar suñu wayjuru tedd wow euh, sëriñ mbay gën a siwee ci sëriñ mbay MC Niass di doom ci Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass radiallahu anhu euh, fa tabarakallahu méttitu xolam la wax rek waaye ñun suñ jàngoroy xol yaakaar naa bu buñ ko waxoon ñu ne ñeseen bokkuñ ci réew mi ndax euh, ziare annuel bu lew na ñeseen la ñu ko jëkka a def kon kuy muñ ziare ba gàmmu jot yaakaar naa yàlla ngay séentu waaye du état ndax tabaraka alladi bi yadihi almulku wa ala kulli shay'in xadir nguur guy sax dak ak nguur guy dem ba ilal abad koku yàlla rek moko am kon nguur gu nek buñ ci gisul suñu bopp it l'essentiel nañ nek sénégalais yor carte d'identité sénégalais yor national sénégalais rek ñun loolu doyna ñu mais pa ñu gis ci nguur suñu bop damay wax ne nag Kaolack ñoo ci raw major partie bi yëpp état lañ ànd ak Kaolack même toujours état moy gagné Kaolack ci élection maire élection présidentielle ak tous les élections état moo koy gagné li waral loolu nak moy këru diine yi ño jokk ci état ba sës ci rek te neubatu wuñ ci laqatu wuñ ci man nak ma ngi waxé en tant que doomu keur Khalifa ñess wara waxé fi keur khalifa ñess neubatu ma laqatu ma limay wax man Serigne Cheikh Tidiane ñess dafa mam Khalifa ndax mam Khalifa ñess mo jur alhaaji babakar deuxième khalifa général bu mam Khalifa alhaaji babakar jur Sidi mohamed Habib ñess Sidi mohamed Habib di sama way jur kon keur Khalifa ñess lay waxé am fi droit di fi wax état bu Macky Sall mosuñ cee gis suñu bopp ñun lew nañu seen ba mu dooree ba tey rawatina nag si ñaari at yii génn wala ñetti at yii ziyaare bi jot na ziyaare kër maam Khalifa Niass tombeek corona bi am fi Khalifa bi oote yónni wuñ benn même sax buñ yónni wut loo xam ne lu nit ñi jëfandikoo la ñu yónni ñuy aar nit ñi mais yónni wuñ benn takk der boo xam ne ni ëllëg bu fa jiyee amoon danañ fa toog waaye alhamdulilah rabbi alamin keroog la ziyaare bi gënoon a jag mais ci siyaare boobu est ce que du li xalifa bi waxoon moo tax état banque loxoom. waa xam nga ci gàmmu lañ jëm Malick. ci gàmmu lañ ne. waaye damay di wax ne li arab di wax al ishaaratu takfi liman aqala. Mhm. junj dafay doy ki am xel. Mhm. dama lay indil fa góom ba commencé. Mhm. ak fañ ko waroon a xoole ak la tax fajuñ ko ba ba góom bi infecté. loolu laa lay indil soog di la ñëwal jëmmi góom bi muy gàmmu gi. Euh, ziyaare ñëw na ñu def ñu lu mel noonu ñun lew nañu seen. indiwuñ fi tus kon ki ñu indil tus sax moo ñu xaw a xanaa ñun. indilul ñu dara du ciep du ndox du diwlin du nangam ba atta robinet yiñ fi daan def sax jour ji jour ziar lañ ko indi ñu bëgg lañ ko dello suñ kilifa gi nañu kiko fi def bokul ak état wa ila même bu bokk ak état yit wane na ak mat mat gu doyni indi walam kon nangul leen ko ko yeen ndaw ñi ñu nangul ko lolu wa dañ ko ko naroon dello malik bi lolu yëpp amé malik ñu muñ ko yaakar ne bu gamu dana tane gamu gi ñew mu gëna ñaawati ministre de l'intérieur Euh, nu mu tudd. Antoine Antoine John ñëw na Kër Mawlana Cheikh Ibrahima Medina Baye. Mhm. tegul tànkam Léona Niassène. Léona Niassène fii la El Hadj Abdoulaye Niass tëdd Al Kabir mi nga xam ne mooy waajuru Mawlana Cheikh mu tëdd moom di waajuru maam Khalifa Niass mi taawam. non euh, kon kon tegu fi ministre bi mu jugee. bi mu jugee Medina Baye tegul tànkam Léona Niassène. ministre Antoine mii bi mu toogee bi mu bi ko falee li mu ba léegi tegul tànkam Léona Niassène. Hmm. te Léona Niassène bokk ci këru diine yu mag yi. bokk ci ñi nga xam ni ñu yàlla di déglu lañ waaye bokkuñ ak ñu yàlla di dégg donte ñëpp la yàlla di déglu waxin la déggin la laaj ku nekk la nga màcc rek mooy saf sa gémmiñ ñen lañ màcc lañ mën a xam mu nekk mu nekk jëf ju ñaaw waaye maa ngi atu monsieur le président Macky Sall mook ñi mu ànd ak di ko xamal ne ko huit ans ou sept ans mi ngi toog Sénégal mm-hmm. lew nañu seen jot nañu gis seen bopp ci côté yëpp mosu ñoo xewle ziar waxuma la gàmmu de ziar bi bi biñ baaxoo sax di def ñun lew nañu seen. président de la république Macky Sall mu jaral ko mu taal otoom ñëw ndokkeel ñu ci ziar boobu mosul am. mais mais sëñ Cheikh foofu foofu dama lay dog tuuti. Mhm. parce que bu ma di boo nee mosu ñoo gis suñu bopp ci moom te démb ci gàmmu gi am na kàddu yu dégg ñu ne ministre de l'intérieur moo moo fi samp bâche bi. <laughs> waaw xam nga bâche daf fi nekkoon Malick. Mhm. réseaux sociaux yëpp xam nañ ñu mu demee woon du ma ci dikkaat. waaw. mu am ay detaay yo xamne day am keur fam yeb mu am fi ñu dindi bass boba ki nga xam moy khalifa bi def déclaration ne man na ko jëndal sama bop waye ma yene len ci yol bi yéen taalibe yi ndax bassu keur khalifa ñass la ku ne nang ci def sa deureum muy man muy sama morom muy keneen ak keneen ñu def ci suñu deureum ba mat 100 millions ñu yónnee ko Chine bass bi wara ñëw def retard avant gamu du ci xaj ñaari doomu keur gi Mam khalifa jur seni bay duñ tudd -hmm. de ay kilifa sant ñas luye baas bi 4 millions ñew indi ko tek ko ci pench mi kon ministre de l'intérieur na xol fu mu dugal waye du ci kër khalifa ñas gi loolu lañ amon luñu ñu détail ci détail bu ndaw ko ministre de l'intérieur mësu ñoo gis ndimbalam ci kër khalifa ñas waxuma la ci tànt jërëjëf Serigne Cheikh batay damay taxaw ci walu état gog ak mhm. lew nañu seen mhm. lan moy problème bi ba eta ak Léona Niassène mënuñoo jaaroo jarotal wa ñàkkuñoo jaaroo taal waye xam nga dama yaakar nak ne dafa am luy xeeñ ca mom mhm. ndax sen bokku na ci penc yi nga xamne malik ku leen jublu yalla jublu la waye ku leen won gannaaw wallahi azim yalla won la gannaaw. Mhm. barke Sidi Ahmad Tidiane Sarifil Fatimi parce que kër ak batine la kër gu nebeutu la. Mhm. ci bir nebeutu gi bo xamul. xamo li way bi nan ku xamul xamul xaj lamuy muy mom rek ko ko xam ndax lam gis bam mu ko bëw 3h du matin 4h japp 5h su ko ñëpp giseen bawle ko mooy lan mooy ñi gis lew nañu seen ba daw di ñu ut si keneen ku ko gisoon wallaahi da nga daw ut si ñu Sidi Lamine Niass waxoon na ko fi en ne kër gii kër la goo xam ni képp ku ko wan kanam yàlla subhaanahu wa taala wan la ñëpp ni nga wanee kër gi kanam waaye ay ku ñàkk sens ba wan ko gannaaw keroog booba ngay xam ne xolu sénégalais geen génn nga ci damaa yaakaar nag ne looloo koy yot yéene wuñ ko ko nag ndax sénégalais la comme ñëpp waaye jullit la comme ñëpp ci niñ ko yaakaaree doomu réew mi la comme ñëpp it ndax nationalité sénégalais la yor moo tax mu mën a jiite réew mi waaye ñu ngi koy xamal ne ko nguur yàllaa ko yor de waaye am nañu yàlla jox baat ñu mën a dëgëral nguur am nañu yàlla jox baat it ñu mën a dimbale nit ci nguur ci ay jiyee yuy ñëw am nañu yàlla jox baat it ñu mën a sensibiliser doomu aadama yi ci jafe-jafe yi nar a ñëw ngir ñu dal ànd ak ànd ak ànd ak nàngam misaal mi mooy corona ba mu fi duggee ñoom wax nañ kenn déggu leen bañ sonnee dañoo daw ci kilifa diina yi نلن تكلن ماسك نين تيزل نين واخك سين طالب يي كون سي دير نيت توبي وول لين گم گم اك ديغلي لي لين توبي رك موي جيت موي جوخ لين سيني كارت لولا ويس نانكو ليغي بات بي كوكو يور موي كليفه دين يي كليفه دين يوي نك كين منوتي ген سيرن شيخ تيان خليفه نياس كين منوتي ген اهلو خليفه الحاج محمد ابن حاج عبد الله ابن محمد كوني ген سي لوخ رك يالا ген سي لوخ كوني جوبلو دوغل ني سي بير يالا دوغل لا دوغل لا سي بيرم نيا سين موي توبا توبا موي تواون Tiwaawan mooy Medina Medina mooy Njaasaan ndax walaa tafaraxoo bi hablillah ñun ñëpp ci buumu yàlla gi lañ jokk yàlla mooy ñor ak Seydina Muhammad borom guddi gi nga xam ni li ñu amoon ci at mi wala ci at yi dajale ko dañuy vider suñu compte def ko ay nag def ko ay gëlëm ngir terale ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lan ndax yàlla moo ko tagg ne ko ya Muhammad wa innaka la ala xuluqin azim lépp lu mu bind yaa ci gën jikko taggeewu ko ñes nga sant taggeewu ko Mbàkke taggeewu ko si taggeewu ko ay dara waaye li mu ko taggee mooy lan mooy jikko ndax bu ko taggee woon aw sa aw aw askan Abu Lahab dugg na ci askan wa kon Abu Lahab askan wa askan wa gënte lay bokk su ko taggee woon ay baay Abu Lahab dugg na ca su ko taggee woon famille Abu Lahab dugg na ca waaye yàlla dafa yàlla yàlla yàlla ku xam la muy def pour ëllëg la moo tax mu taggee ko lim ñu gën ñun ñëpp nga xam ne kenn ku ci nekk boo ko gënee sa morom muy ki sant Jaxumpa ki sant Si ki sant Siise ki sant Nangam lu boo ko boo ko ko gënee yaa ko gën lépp mooy jikko jikko jooju la ñu gënee ba tax nag ñun lew nañu seen ñu roy jikko jooju ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niñ ko royee mooy lan mooy xaaruñ dara ci état gisuñ seen dara ci gàmm gi nag gisuñ seen ndimbal ci gàmm gi ah gàmm gi daal kenn lañ ci gis ndimbalam Kaolack yëpp mën cee wax mooy directeur Senelec tànn na làmp yëpp mu leer nañ ñu diggante Médina ak Niassène ku ñëw Kaolack démb ñëw fi tey danga xam ne mbedd yi changé na ci wàllu leeration su ko moyee gisuñ lenn loo xam ne nii état rek noter na ko nga dugal sa loxo ci gàmm gi ci ëhlu alxaaji Abdoulaye Niass. sëriñ Cheikh foofu daal dinaa la dog tuuti mooy ci wàllum éclairage bi nga wax noonu ndax bi Baye Mbaye MC defee déclaration bu wax li muy wax porte parole mu Mariama Sarr dafa génn teg gi wax jooju ba teg ci ne ku xool Kaolack ren xam ne Mariama Sarr liggéey na ko naka nga jàngatee wax jooju. waaw man loolu duma ma ci wax xam nga yor maire yi ay at ñu ne ren ku ko xool xam ne liggéey nga ko loolu c'est le détail. ah dafa joxe ay détail ay postes non dañuy dañuy waxtaan dañuy waxtaan xam nga mm, sëñ Malick. Hmm. ku ñee sa aawa sawar laa may ñaareel. Hmm. waaye ku ñëwul sa aawa du la may ñaareel. Hmm. xam nga loolu muy firi mooy sa dembin bu rafetee. même sa tey bu ñaawit kenn du ko gis. waaye sa dembin bu ñaawee sa tey bu rafetee kenn du gis loolu. kenn du gis rafetaay ga. mooy lan mooy ku ñu jox mairie ay at ñu bàyyi ba ba mawlit deux mille vingt et un ñu soog di wax ni liggéeyam ku ko xool ci ren. kon ana yu daaw ya ana yu daaw jéeg ya ana yu daawaati jéeg ya. kon bu ren bu daaw baa ko fatt ci ci lëndëm. bu daaw baa ko fatt ci ñàkk respecté. bu daaw baa ko fatt ci leneen. Kaolack moom amaguñ change maire. muy Mariama Sarr muy avant Mariama Sarr ba ci Khalifa Niass mi nga xam ni nekkoon na maire Kaolack bokk ak man. kon mbay yar bi si sama si sama kaw la njëkk daal. Hmm. amaguñ sens maire. Hmm. ci ñëpp nag. amuñ maire boo xam ne Kaolack individuellement moo ko tax a jóg. Hmm. pour lan ñëw régler solution Kaolack. xoolul ci état la nekk wala nekkul ci état ci opposition la opposition la nekk wala nekkul ci opposition. loolu amaguñ amaguñ sens boobu muy Mariama Sarr muy keneen a ci yem nag. mais porte parole bi dafa côté boobu comme li kooku du ma ci wax ndax doomu Mawlana c'est moom dane waaw dane dane dafa am yenn politiciens yu nekk seen ginnaaw ku ci mel ni Baye Mbaye MC. ku ci mel ni Sëñ Cheikh. dafa am yenn politiciens yu nekk seen ginnaaw di leen pousse di leen wax loo. xam nga man politicien mënu maa jox lu ma amul Malick. lépp lu ma am lii moo ma ko may. sama kuréel gi moo ma ko may ak sama góor gi xalifatul xaaji Muhammad waaye man politicien mënu maa jox lu ma lu ma suur. parce que bu ñu la joxee tey mille man sama dépense ëpp na loolu. suñu ma joxee tey 100000 francs sama dépense ëpp na loolu. kon <laughs> mënuñ laa jox lu la suur. mais kaddu kaddu gi ngay wax da nga koy xool ci diggante sa borom. Mhm. xool ko ci sa diggante ak askan bii ñëw di la ñaanloo ci seen solution lan moo ko mën a régler. Mhm. loolu kese la. Mhm. parce que Macky Sall opposition la woon. te bu rek nekk président. pourquoi ba mu nekkee opposition li ñu ko doon waxal ci yu baax. waruñ ko mën a waxal ay ujjëm tey. pourquoi ba mu nekkee opposition ni ñu ko doon jàppalee ba alxaji ibrahima xalifa bu tedd boobu jël bind jëëm bi ci la muy ci jëëm bi muy muy lan muy sekkere bi nga xam ne moom la ñuy falee nit di ko follee nit ñu koy dogalee ci arash mm-hmm. di ko di ko baagantee ci diggante aras ak kursi yu secret boobu jàpp lan jàpp allahu am la hal maadu mu jàpp turu ismullah al azam pire udeur muy ismullah ismullah mooy turu yàlla muy baatub laa ilaha illa muhammad rasulullah ñu xar ko bind ci bind bind ci lawxul mahfuz xar loola gin gind ci ruux yi bind ci leer yi ci yéegale nit di ci wàññee nit di ci wàccee nit alaaji ibrahima jël jël sirru sirri booba jëlee ko ci bàyyam manga nga xam ne bokkoon na ci cinq premières yi nga xam ne fii Sénégal kalifa Niass bu ne na am mu am bu ne du am du am mu jël loola bind ko ci jërëm bi te bam ko koy wax yaakaar naa Macky sàll kenn bëgg koo doomoo wala kenn ñemewu koo doomoo ndax tolluwaayu nguur balaa Ibrahima di taxaw fii ci Sénégal ne na monsieur le président Abdoulaye bu dee mu wàcc réew mi mooy jàmmi Sénégal na wàcc réew mi bu fi bal tàkk bëgguñ ko fee dégg ñaata alal lañ fi yónnee yónnee nañ fi mal trent millions يوني في مرة 200 مليون نينا خليفة بو تيد بي ديندي وخم الله ابراهيم لاماي واخ يالا موماكو وات ماكاي واخ تدوما تيغي واخو يالا غير علال واخنا كو بري جانا بال بي تاكنا ني تك سي دان ان سيمين بريزيدنت دي لا ريبوبليك ماكي سال نيو الله ابراهيم بيند لامي بيند سي جهام بي نكو نيانا نزيرو نانا كو نارا جيتي سنغال الك مو نديك نيو في يا نديك نيو لو ناني سن دخنا لا نغور غي بام كو كاي واخ كان في فيديو وانغ في كو ويدو ني وان ارشيف يانغ في با بار دمال سما خبرو بايبا نغا تاوال ca ñay fal ak ñay fole la bokk mu ñëw tawasul ca vidéo yaa ngi fi ku ko weddi ñu tegal na ko mu tawasul ci maam xalifa maam xalifa tawasul ci boromam ngir lan ngir xal ji fi toog matee ko sëkk muy alaaji ibrahima ca booba wax na mu jël loole yëpp ñu takkal ko garaad yi gannaaw ba ko ko yàlla takkalee ndax fa faalun lima yurid yàlla dara safu ko ku dara safut nag da koy ñaan ca kem nam la bëggee mayee bi loolu yëpp amee ñese lew na ñeseen la njëkk wan gannaaw lew na njëkk wan gannaaw lew nañu seen la ñu ñi mi ànd ak njëkk wan gannaaw ba ñuy def loolu it xooluñu woon mu fay ñu pour ko dem àdduna waaye un mois ñu respecté ñu tuuti Malick ci réew mi lañ bokk mm-hmm. un mois lew nañu seen ni yeneen kër yi mag yi di gàmmoo mm-hmm. noonu la ñu gàmmoo mm-hmm. ni yeneen kër yi mag yi di ziare noonu la ñu ziare du lenn loo gis lu jub lu jublu ci lew nañu seen ci wàllu état kon Baye Mbaye Baye Mbaye Emzy suñu wayjur bu tedd woowu lu mu wax lu am la xaqiqatan la lu am la ndax lu em kër si Maolana Cheikh Ibrahima Baye Niass doomu Maolana Cheikh Ibrahima bu ne boo séddooyee ci la la état di jox muy cent vingt mille ñaata taalib yi la mën a jox téeméer ju ne fi nekk ñaata taalib yi la mën a jox ay un xam nga am na loo xam ne rafetul ñoo bokk réew mi te information dafay daw malik bu yaakaar ne kilifa diine yi ak kër diine yi du ñuy waxtaan dañuy waxtaan bu événement bu mel ni gàmmu Tiwaawan jeexee dana am ku dëkk fii ci Léona Niassène ne leen waa lu état indi seen kër gi ñu ne 30 millions wala 50 million ñu yàggee ko xalifa bi mu ne waa baax na dégg naa leen léegi bu jógee fu mel ni foofa indi fii 10 millions lu mi nuru exemple la ñuy joxe bu demee fu mel ni Touba yóbbu fa un milliard man ma am xaritu Mbàkke Mbàkke ne ko lu mu indi foofa ñu ne ñu un milliard waa ko yóbbu Touba un milliard jaadu na indi lew nañu seen sax gat gàtt cinq cent millions mm-hmm. dañuy waxtaan rek. Mm-hmm. lu ku yóbbu Touba un milliard jaadu na nga indi lew na ak ñeseen cent millions. Mm-hmm. ndax ñëpp këri diine lañ. Mm-hmm. ku yóbbu Medina ku yóbbu ku yóbbu ñeseen quinze millions jaadu na nga yóbbu Medina trente millions. ku yóbbu Medina trente millions jaadu na nga indi ñeseen trente millions. xaaruñ xaalis boobu ci moom mais yemale gi la ñuy xaar ci moom. buñ xaar même buñ xaaru yemale gi ci moom it ñu xaar respect bi ci moom. même bu ñu xaarul respect bi ci moom ñu xaar yëg-yëg bi. Mhm. mooy en tant que doomu réew ñooy xewle lu ñuy xewle mooy guddik Seydina Muhammad naa ci dem participer ci comme lan kenn ni ma participer woon ci leen kër yi. Mhm. ndax am na loo xam ne bu yàggee jaxase këru diina yi lay doon. Mhm. te ah ñun duñ ko nangu ah duñ nangu ko ñu jaxaseeg Touba. duñ nangu ku ñu jaxaseeg Medina. duñ nangu ku ñu jaxaseeg Tiwaawan. duñ nangu ko ñu jaxaseeg leneen. lépp lu fi nit indi ñu xam ne lii bu ko tegee ci loxo comité organisation bii. buñ ko séddalee luy jaxase këru xalifa la ñu delloo leen ko bu ñu xamee nag lii jaaru na bu ñu ko séddalee kër xalifa ñëpp danañ am kenn du yëkkat sa loxo ne amuma ñu ne gongo ñun daal liñ bëgg mooy ku ñu respecter kër xalifa ñes liñ bëgg mooy ku ñu respecter lew nañu seen liñ bëgg mooy njiitu réew boo xam ne bu ñu xewlee mu yebal ñi ñu yeeyoo ñun foofu laa tëjee nañ yebal ñu yeeyoo ak ñun wolof nag laa wax mënuñoo xewle nga yebal maire yi boo xam ne bët ñu gis ko il fallait que ñu waxante dëgg mënuñoo xew la nga yebal koo xam ne moom bëggee gis day toog suñ buntu kër ran boobu pour gis ñu yow nga koy yebal ci ñun pour buñ xewlee loolu respect respect mooy suñu xewlee nga yebal koo xam ne maanaam yow soo tukkee dana la war a mën président dégg na laaj nag bu boobaa lay ba jub président de la république monsieur Macky Sall si ci Léona Niassène man Serigne Cheikh Tidiane Niass dafa maam kalifa maay waxee ci sama responsabilité bopp mhm. di waxee it ci sëtu maam xalifa di sët ci maam xalifa waxee wu ma ci turu kenn ci sama turu bopp laay waxe mhm. man ak mboolem ku ma jiite di mouvement jeune marabout bu Léona Niassène bi mhm. kontaan na guñ ci yow kontaan na guñ ci li ngay yónnee ci Léona Niassène nañ respecté Ousra El Hadj Abdoulaye Niass nañ respecté Léona Niassène liñ la defal nag bu la doyut leneen dootu la doy ku yow ba nga doonagut dara yàlla def la président koy xool war nga koo njëkk a xool. Mm-hmm. koy xool war nga koo njëkk a xool ñun bañuñ la ah bañuñ sa gouvernement ah liñ bañ mooy sa doxalin. Mm-hmm. ak sa doxalinu gouvernement. Mm-hmm. ndax wala xad karab naa ba ni aadama wa amal naa fil barri wal baxri la yàlla wax yàlla neen lépp lu ma bind doomu aadama ma ci gënal. kon yàlla du bëgg lu ñu bañ ñun. te doomu aadama nga te julit nga te yàlla cëral na la cër boo xam ne cëralu ko benn sénégalais jamono ji mooy sénégalais bu la neex nga tey bu fanaan këram du fa fanaan sénégalais bu la neex nga ne këram dama ko soxla tey laaju dédommage bu la neexee bu la neexee ñu dédommage ko këram mu jëkk këram nga ne état ko soxla te sa tur lay jóge cër boobu nag yàlla jox la am na ñum cëral lu gën a rëy loolu fuuf te doxalee wuñ ñi ngay doxalee Souleymane kat ba mu soxlaa buur ba dafa dafa naxante bam mu soxlaa buur ba dafa naxante naxante ba am ko waaye moo ëppoon doole buur ba ah. su ko neexoon mu mu jël cëru yónentoom jël cëru buuram jël cëru président xeexanteeg moom ngir def la mu bëgg waaye dafa naxante laaj lan laa koy teralee ñu ne ko kii sa moromu buur la bu ñëwee teralee ko nangam kooka ñëw mu teralee ko loola jël mboolem li nekkoon ci palem ba jinnee dem jëli ko indil ko ko mu teralee ko loola boobu mu ñëwee ne lii de nuróon naag sama nangam ba pour wane ne alquran képp ku ànd ak yàlla dara du la mm-hmm. kon nag moom nguur moo ko fal waaye ñun yàlla moo ñu fal mm-hmm. kon nag ki nguur fal ak ki yàlla ak ki nga xam ne heure boo soxlaa da ngay taal say motaar taal say oto daw ñëw sukk ci kanamam mu mu tëfli la ci allahawam yi nga raayoo ko am ca yaakaar wala nga ñàkk ci yaakaar it dang ko def ngir am ñoo soxla kon kooku it bu xewlee yëg yëg la ko xew-xewam ñun amuñ lu dul rasulillahi amuñ lu dul Seex Naama Tijaan Sarifil Fatimi kon ñaar ñooñu heure buñ xewlee ñi ngi sàkku état ne revenir ci lew nañu seen ni muy revenir yeneen kër yëpp jot na nag diko xamal nako ko lew nañu seen nit suñu bëgge am ben kàddu mo fi ne muy kàddu khalifa bi khalifa bi moy moy kilifa gi moy khalifa bi moy kilifa gi moy khalifa bi ba muy téeméer yoon ku ñu ko fonkal fonkul ko bisu bayam bi muy ziaré bañ jëm ak bisu rasulillah bi muy gamu gi ñu fonkul la ku ñu fonkalewut ziyaare bi ak gamu yiñ am amuñ ci yow soxla ñu wax ci yow lu ñaaw lu ñu métti am nañ droit wax ko ndax ay citoyen lañ citoyen bu ne am nga droit wax lu métti ci sam réew ak sa doxalinu réew ngir boo ko seetaanee bul jàpp ne sama noonay wax waaye nga jàpp ne ku war a wax ci réewam mooy wax boo ko jàppee noonu rek doo sonn waaye koo seetaan mu wax dëgg nga ne kii daf maa bañ pexe ya commencé tàmbali wax ja commencé tàmbali bu yàggee ñëpp pexe dugg ca ñoom lañ koy dénk daal mooy fayantoo ak ñu koy dugal ci détails yu sew na ko arrêté Sénégal dafa xat boo dàqee ay maamam mu jëm Fatick. Mm-hmm. boo dàqatee ay maamam yi jógee Fatick ñu jóg dugg Saalum. Mm-hmm. boo dàqee maamam yooyu ñàkkul ne dana am ñu mbokk ak fii ci Niassène wala Touba wala Tivaouane wala Ndiassane wala Médina. Mm-hmm. loolu par la force la. kon loolu nag dafa am biir Sénégal kon nañ rafetal. macha allah ñu rafetal ànd bi rafetal taxawaay bi. di ko xamal ne ko élection yi ñu jëm muy élection nu tuddu tudd. maire bi. ah muy ñoom muy opposant bi. ku ko ci bëgg a jël rek na ñu respecté suñu kilifa diine yi. man de tant que maa fi man Cheikh Tidiane Niass du nangu benn du ma nangu sama benn kilifa di def déclaration di jëmale ci ñoom ñaar ñëpp te respecté wuñ ko ba pare. Mm-hmm. respecté bi nag du xaalis booy indi xalifa bi mënoo ko jox lu ko doy. Mm-hmm. ndax koo xam ne dépense am 700000 la wala 750000 journée. Mm-hmm. bokkut ak jàmbur yi mu yor ci àll bi kooku mënoo ko jox lu ko doy. yàlla rek moo ko doy waaye kon loo ko mën a jox mu doy ko mooy respect bi ak yëg-yëg bi mhm. mais pas bëgg naa rek danaa ñëw wan ko tey respect su ma jëlee faaleetuma ko mhm. loolu doxeetuñ ko te àndeetuñ kook nit macha allah doomu Kaolack yi nag maa ngi leen di laajee biir ne leen yeewu leen mhm. yeewu jot na directeur Sénélec bi def ci bi def ci mbedd yi mu leer it ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko waxaat ndax ñun ku def lu baax xam nga directeur Sénélec def ay làmp terewul suñ buntu kër leer parce que am nañ ko mën nañ ko waaye yëg-yëg la wan ñu ne ñu gàmm gi jege danaa ci def nangam mbooleem pot lampe bu nekk si ci ci ci Kaolack changé na ko. Hmm. def ci yu bees changé fii def ci pile yu bees yëpp dëkk bi yëpp leer te loolu yàgg nañ koo sàkku. mënuñ hmm. ko am. Hmm. kon ñu ngi koy sant ci loolu. di wax ne am na ñu ñu ko doon gën a xaaree. fii daal ku liggéey yaa ñu moom. ku liggéeyul réew mii liggéeyoo Kaolack gii waxuñ ci yow dara. ak koo mën a doon nag. macha allah jërëjëf kàddu gi am na solo dégg nga leeral yi nga xam ne indi na ko ci li nga xam ne moo jëm ci gàmm gi euh, muy li ñuy rumeur yi doon dégg ni Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur moo indi woon bâche bi indi na leeral yi nga xamante ni moo ci am ak yeneen yi nga xamante ni wax yi nga xam ne Baye mbay MC waxoon na ko ak kooku di Mariama Sarr porte-parole waxoon ko indi leeral yi nga xamante ni moom la ciy joxe lim ciy wax rek mooy nan nu fonk nan ñu jox seen cër te wareef la ku ne law nañu seen xam ne suñu borom am na lu mu fi def ku ne mel na xam ne suñu borom am na lu fa def kon jox leen seen cër yàlla na war na leen jox dig daje beneen yoon incha allah di ñaan suñu borom lépp li ñoo xam ne ñaan nañ ko ci gàmm gi mu nangul ñu ko jërëgéen jëfa beneen incha allah